asalaamaaleykum mbokk xaritu internet yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen sant ku ci nekk ci sa ak sa sant euh, di am mbégte bu baax a baax et gërëm leen ci ànd ak ngeen di ànd ak suñu portail d'information www.letemoinweb.sn euh, merci et bienvenue dans votre émission Le Témoin tey nag dañu am mbégte ak contentement bu baax euh, dalal koo xam ne ku ràññeeku la kenn dootu ko présenté ci Sénégal comme niñ koy faral di defee rek ci biir émission bi donc ku nekk jaar na fi waaye tey ki ñuy dalal mu ngi wuyoo Clédor Sène Clédor euh, seen nag kenn dootu ko présenté ci Sénégal miin nañ ko bu baax ci euh, milieu médiatique bi miin nañ ko bu baax aussi tamit à chaque fois xew-xew am ci Sénégal rawatina nag lu jëm ci wàllu politique mu génn joxe ci xelam ak xalaatam moom Clédor Sène mu ngi jiitee mouvement bi tudd Clair vision maanaam gindi askan bi tey nañ fas yéene waxtaan ak moom waaye balaa ñu moom dañ koy Euh, euh, dañ koy dañ koy félicité ba pare aussi tamit euh, ci disponibilité parce que c'est pas facile ak temps yi ku koy suivre xam nga ni il est trop chargé mais loolu yëpp da koy bàyyi ñëw donc muy wone bëgg-bëgg bi nga xam ne bëgg na réewam aussi di wane cofeel gi nga xam ne am na ko à chaque fois bu ko réewam soxlaa mu présent et donc loolu dama ko ci euh, euh, sant di ko gërëm Clédor euh, maa ngi lay nuyu bàyyil ak internautes yi di la remercier bu baax ci sa disponibilité. waaw jërëjëf jërëjëf man tam maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax ci invitation bi. Mm-hmm. di am mbégte tamit ñëw wuyu si la parce que man serviteur la je suis à votre entière disposition. Mm-hmm. pour bu ngeen ma soxlaa ci ñu commenter actualité semaine bi wala leeral loo xam ni ci sama domaine la ñu ànd ci mais profiter di nuyu euh, ñi seetaan di suivre euh, témoin témoin web yëpp euh, di fas yéene am ak yenn jotaayu waxtaan ci fànn yi nga ko yi nga ko orienté mhm. fas yéene ci indi ay tontu yu leer incha allah. ok ok merci ñu ngi lay gërëm bu baax ci loolu. Clédor yow euh, da nga jiite benn mouvement boo xamante ne nii mouvement bi Sénégal yëpp xam nañ ko. muy hmm. Keleer Vision maanaam euh, di gindi askan bi. Hmm. te it euh, mu nekk mouvement boo xamante ne nii ñu nga ràññeeku ci lool. Hmm. ci ci ay débat sa su la sa réew soxla wala sa su ko jot. amee ci xew-xew yoo xam ne xew-xew réew mi la waaye nag dañu took à quelques mois de l'élection législative ñu gis ngeen ñëw rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi donc ñu bëggoon xam ak euh, lan moo tax lan moo waral choix bi euh, pourquoi pas euh, ngeen dem rejoindre beneen coalition parce que aar mu ngi fii mhm. Pape Djibril Fall mu ngi fii mhm. aussi APR wàllu mu ngi fii APR mu ngi fii mhm. gëm sa bopp gëm sa bopp voilà bu buggaan lan moo waral choix boobu voilà c'est vrai que man maa ngi jiitee benn mouvement citoyen bu tudd Claire Vision mais mouvement citoyen boobu dafa bokk aussi ci benn coalition bu ñuy wax euh, coalition citoyenne le peuple. Le peuple okay. donc dama ànd ak sama ay naatango mouvement citoyen Euh, comme jeunesse au pouvoir comme nitu dëgg valeur euh, comme euh, CUSEMS e authentique bu dàmbooj et cetera ak ñeneen euh, ñu former benn kuréel benn coalition citoyenne donc ñu li ñu gisoon ci njëlbeen gi moo doon ñu xàllal suñu bopp suñu yoon ñu am euh, une présence citoyenne à l'Assemblée nationale mais dafa am ñaari facteur yoo xam ni moo tax ñu adhéré euh, Yewwi Askan Wi bu njëkk bi mooy parenage bi nga xam ni Macky Sall génnee na ko daf ci jublu éliminer ñi nga xam ne bëggula jàkkaarloog ñoom te ñun xam nañu man Dame Mbodj Karim Mansour Mboup euh, euh, professeur Cheikh Omar Diagne ak ñeneen ñi ñu àndal bu ñu demaloon suñu bopp dañuy segg ci parrainage yi rek exemple bi ma lay jox rek mooy sëriñ bu bi nga xam ne moo gagné bastion électoral bu toll ni Kaolack ñu ni ko amoo parrainage xam nga loolu yanuwul maanaa sëriñ bu dañ ko segg parce que dafa perteloo bi tey ak euh, Modou rax ma Ndiaye Rahma donc defet boobu la waa APR digéré wul mhm. parce que lu jiitu loolu président Macky Sall invité na ko pour mu liggéey ak moom moom mu fas fas yéene demal boppam ñu san sanctionné ko ni ko na yem fii donc damm ay laafam mhm. kon ñun loolu la ñu bañoon si biir moo doon première raison bi mm-hmm. ñu waxtaan suñu biir parce que écho yi ñu doon jot mooy ñun de bëgg nañ leen voter waaye ngir yàlla dem leen yeewi askan bi donc remonté yooyu lañ doon am ci suñu intervention parce que ñun dañu nekk ci kuréel boo xam ni yàlla dafa def ñu am accès aux Damboj tout le temps yaa ngi koy gis ci média yi. Mhm. Mhm. muy man mhm. muy Mansour muy Cheikh Omar Diagne donc am nañu visibilité boo xam ne. xëy na homme politique classique yi sax. booy seetlu amuñu ko. Euh, donc ci ci wàllu euh, euh, débat public. débat public donc ñun ñoo ëpp présence ci débat public. effectivement donc dañuy am naturellement ay ay commentaires ci suñu ay sorties yoo xam ne. boo ko jëlee day doon benn sondage. donc ñëpp la ñuy orienté ci Yewwi Askan Wi. te ñun nag. Euh, boo gisee ñu orienté wu vers Yewwi Askan bi sax euh, président Ousmane Sonko ak Pastef moo tax parce que ñoom la ñu gën a jege ligne donte mouvement citoyen la ñu ñun dañuy prôné moom sa réew euh, comme ñoom mu Diop ak ñoom Mamadou Diop Decroix tey ni ñu ko doon prôné dans les années 74 yu yàgg la moom sa réew mooy souveraineté moom sa bopp boo xoolee li may jooy man bokk na ci euh, suñu ressources yi xam ni 10 pour cent kese lañ ci am 90 pour cent yi ah. moo tax sama mouvement tudd mm. claire vision maanaam gis-gis bu leer mm. ma indi ko ci olof muy gindi askan bi mm-hmm. gindi askan bi ci moomeelam mm-hmm. ci ci réewam ni muy doxee mm-hmm. donc sous esprit de souveraineté boobu ñu gis ci Pastef ci président Ousmane Sonko euh, moom lañu bokk ak moom ci jubluwaay donte ànd naag ñeneen ñoo xam ni xëy na bokk ñu gis-gisu politique mais ci wàllu politique des fois di nga lal ay stratégie pour am jumtuwaay bi nga bëgg doog a doxal euh, li nga war a doxal donc euh, je crois que euh, askan bi fi mu nekk nii su souhaité nañu opposition bi booloo booloo bu gën a yaatu possible pour mën a jëm ci ay élections yoo xam ne dañuy foqati majorité bi ci mouvement su bennoo Bokk Yaakaar donc pourquoi demuma ci yeneen coalition yi yaa ngi wax aarak yooyu mais wallu moom laa waroon a gën a jege parce que man sama compagnonnage politique ak PDS ñëpp xam nañ ko depuis les années 88. Mm-hmm. mais je suis resté fidèle à mes mm-hmm. te tey jii sama trajectoire trajectoire Ousmane Sonko la gën a jegeel. Mm-hmm. donc moo tax ma ma ma dem euh, ci mouvance su Yewwi mais foofu naturellement état major bu nekk da ngay œuvrer pour place say ay nit. loolu moo tax finalement ñun mujj ñu sax figurer ci liste yi. mais terewul euh, dinañ jàpp ci liggéey bi di ñaan yàlla may ñu majorité wala groupe parlementaire yu am doole nga xam ni travail parlementaire bés bu taxawee parce que liggéeyu député du dem rek yëkkati sa loxo voté en plénière mais dafa am ay travaux préparatoires en commission laata commission di ngeen di daje des fois ñoom dañuy def sax ay séminaire pour coordonner seen ay position pour répartir euh, prise de parole yi pour préparer lii di amendement wala ay ay ay proposition de loi wala wala ay motion préjudicielle ak yooyu ci liggéey boobu ñun mën nañ ci jàpp parce que comme sama sœur Maïmouna Bousso par exemple nga xam ni moom force citoyenne la nekk mouvement citoyen la am adhéré également Yewwi Askan bi mm-hmm. kooku ñoo bokk gis-gis ci lépp mm-hmm. mën nañu liggéey ak yeneen membre yoo xam ne mm-hmm. euh, am nañu chance su nekk assemblée nationale kon euh, combat benn la rek seen un travail boo xam ne même boo nekkul ci ci ci classement de départ bi sax tu restes dans l'équipe euh, mën a apporter li ngay apporter bu bés bu ñuy jot ci suñu réew. donc loolu moo tax ma choisir Yewwi Askan Wi plutôt euh, qu'une autre coalition parce que euh, ñoo gën a jege gis-gis donc loolu mooy jubluwaay bi te coalition citoyenne le peuple aussi adhéré Yewwi Askan Wi yombutoon parce que débat la woon ci suñu biir ba ñu jël une décision au vote majorité bi emporté ko mais du woon unanimité donc am na ñu gisoon ni la ñu waroon demal suñu bopp mais li ci ëpp la ñu gisoon ni dañu war a intégrer la dynamique de l'opposition donc te te yeewu askan bi la ñu gis nii mooy dynamique bi nga xam ne moo gën a jege suñu suñu taxawaay. ok euh, donc wax nga ko sànq question de souveraineté mais question de souveraineté boobu euh, dañu gis ni dafa am ñoom dañu jàpp ni euh, bon. Euh, yéen seen euh, seen seen taxawaay maanaam yow surtout sax côté Clair Vision. Mhm. maanaam ci activité politique ci adhé ci adhésion bi nga xam ne adhéré na ko ci euh, ci mouvement ci coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. donc c'est pour des intérêts politiques politiciens yaa ngi yi nga xamante ne ni yéen a koy am parce que tout récemment gis nañ fi ay activités yi nga xamante ne ni ay faits yoo xamante ne ni donc sur des réseaux sociaux ci diggante ci biir coalition bi nga xamante ne ni donc ci wàllu. tabb. coalition euh, Yewwi Askan Wi coalition Yewwi hmm. Askan Wi ci wàllu tabb. donc ay nit pour hmm. ra pour raaya ku ci mel ni Dame Mbodj mi nga tudd sànq. Hmm. Euh, génn na wax ci réseaux sociaux yi Karim génn na fii donc mu mel ni demoon na bay indi ay ñool ñool ba askan bi sax demoon na ba beneen instant euh, ñu ngi doon wax naan doo ñi daal seen bopp rek lañ fi nekkal donc ak li ñuy wax li ñuy dénoncé li ñuy wax pour askan bi di ko wooteewu mais su politique jotee da ngay gis ne donc ñoom seen i seen taxawaay la ñuy defar seen i dëgëral laay pour mu gën a dëgër ci wàllu politique yow lan mooy sa position te dégguñu la ci gisuñu la ci boobu ba léegi nga àddu ci question boobu. waaw xam nga euh, kuréel. Mhm. dafa am organisation. Mhm. cest ñun dañuy gis ci suñu biir di waxtaan ci suñu biir. Mhm. man dama jàpp ni am na loo xam ne bu ñu ko waxtaanee suñu biir rek jaratul waxtaan ci biti. parce que euh, ñun ñoo décidé. à la majorité. dem adhéré ji euh, coalition. Yeewi Askan bi. donc coalition Yeewi Askan bi. gan lañ fa. donc mënoo nekk gan ba noppi poser ay conditions. mais bu ñu ma tegul ci poste sàngam lii ak lii ak lii ak lii. donc man kenn du ma dégg ci débat boobu. parce que bu fekkee ne da nga jóg pour service sa réew. Euh, service sa réew mën na bañ a nekk rek député. Euh, donte député mën nga liggéey liggéey bu am solo. mais à d' autres stations aussi. Euh, mën nga liggéeyal sa réew. donc député rek nekkul position boo xam ne nit ki mën na ci liggéey moo tax san sànq ma ne la. am na travail d'équipe boo xam ne ñun mën nañ ci indi suñu contribution donc lu ma nekk fii di xëccoo ay position wala di mer parce que ñun dañu nekkul sax ci liste bi du tout nekkuñu sax cinquante cinquantième wala centième mais on n'est pas du tout sur la liste mais man kenn du ma dégg ma ma ma déplorer loolu te ñun xam nañ ñun bu ñu demaloon suñu bopp uh-huh. euh, yàlla dinañu jox dara uh-huh. mais euh, solidarité ak uh-huh. dynamique euh, de groupe boobu nga xam ni askan bi moom la demandé loolu rek moo tax ñun ñu dem yeewu askan bi surtout ok mais ñëpp xam nañ ne politique Sénégal fii ni muy doxee mooy ah, dana ànd ak yow waaye bu fekkee coalition la ku ci nekk am nga sa intérêt am nga ay proposition yoo xam ne proposé nga ko donc tey Claire Vision yan proposition la proposé Yewwi Askan Wi tey suñu demee ba nga euh, xam ne waaw. Claire Vision deful proposition parce que man dama dem. Mhm. adhéré en tant que membre coalition citoyenne le peuple. Mhm. Claire Vision dafa njëkk a bokk ci benn coalition boo xam ne ay mouvement citoyen kese ñoo ci nekk mouvement citoyen boobu ñoo ñooñu ñu ngi proposé woon sama candidature ak candidature Dame Mbodj Dame sur la liste nationale man sur le département de Dakar donc ces propositions te loolu ñun ñoo ko waxtaan ba décidé comme foofu bëri na ay prétendants euh, raisonnable nga proposer lu bëri ñu proposer ñaari profil donc te ñun wax dëgg yàlla dañ ñoo sollicité tam ñoom ñoo ñu woo bu dëgg rek dee dëgg ñoom ñoo ni soxla nañu ay profil yu mel ni yéen mais am na ci ñoo xam ne xëy na euh, suñu présence arrangé wu leen parce que mm-hmm. bëgg nañu dugal seen ay nit mm-hmm. loolu mooy politique politicienne mm-hmm. mais ñun loolu duñ ci tardé duñ ci xëccoo ñun l'essentiel mooy am nañu yaakaar ni léegi ñu jot suñu réew te bés ñu ci jotee ku nekk dina am euh, euh, euh, cër boo ci am wala liggéey boo ci war a def. ok d'accord beneen agression bu am Sénégal bu bokkut ak physique. waaw sànq tout à wax nga ma fii ci police et tout mais question bi maanaam. te ñu ràññee fii ci Sénégal. Mhm. ay responsable politique. Mhm. ay kilifa ñoo xamante ne mhm. ndaw ñi jox nañ leen bopp. ay leader politique ku ci mel ni Ousmane Sonko. ku ci mel ni Clédor euh, Sène ay activistes ñoom Karim sur les réseaux sociaux ñuy def ay déclarations yoo xam ne maanaam parfois dafay jéggi dayoo ci yenn wax yi ci teg ko ci kaw nguur ci attaqué ay nguur ba di dem bi def ay menaces parce que tout récemment euh, dégg nañ Ousmane Sonko muy woote rassemblement. Euh, euh, à la place de, la nation pour. vendredi vendredi demain incha allah. Wow. donc est ce que loolu euh, bokk na ci li nga xam bokkul ci li nga xam ne <laughs> mooy influencer jeunesse bi. Euh, bokkul aussi tamit luy yàq. Hmm, hmm. en tant que leader. aussi hmm. en tant que sa taxawaay. donc yow lan ban ban ban ban xalaat ngay indi ci loolu. voilà léegi ma recentre question bi parce que bu fekkee ni woote nañu rassemblement vendredi. je crois que Yewwi Askan bi moo woote. rassemblement vendredi. Mhm. Euh, président Déthié Fall. Mhm. mooy principal organisateur bi. Mhm. ñeneen ñi dañu signé comme co co-organisateur. bu fekkee ni euh, liir nga kayit bi ñu déposé préfecture. mais déclaration Ousmane Sonko bi. ban déclaration la def. Euh, bi vidéo bi mu mujjee def bu ko jaree dinañ dinañ. dinañ non lan nga retenir lu choquant ci propos am. ah bon li ma retenir mais li ci choquant kese kese li ci choquant su ko euh, jaree su ko jëree danañ mobiliser fekk ko palais jëli jëli ko danañ dem ba pale jëli ko su ko jaree su ko jaree bon loolu. Mhm. Euh, il faut ma teg wax bi ci mhm. contexte am. Mhm. parce que man mii. mës naa wax lu mel noonu. mais wax ma ne dañuy dem pale jëli ko. Euh, d'ailleurs man biñ ma arrêté au mois de mars sax posé nañoo benn question à la ma est-ce que. reconnaître nga ni ci benn vidéo da nga ne su président Macky Sall demandé un troisième mandat tu vas appeler à l'insurrection maanaam da ngay woote fipp xam nga loolu ay jamono man waxoon naa ko parce que loolu yëglu ci lu ñëwagul la mais dama leen tontu ma confirmer loolu parce que politique contexte la ak rapport de force président Macky Sall daan na wax ni day dem déloger ji Ablaye Wade palais ñëpp dégg nañ ko vidéo yaa ngi fi les archives sont là boo àggee fii wala boo jalgatee yoon ñun ñu jalgati yoon parce que mënoo jéggi yoon ba noppi bëgg ñoo tënk ci yoon mm-hmm. loolu amul fen mm-hmm. donc man nee na président Macky Sall bés bu postuler mm-hmm. en deuxième mandat en troisième mandat plutôt parce que bañ ma ko laajee police dama benn benn réponse bi sax pour mu billi exactement man li ma wax parce que dama daan wax moom mu mu tëgg phrase am. ma ne ko léegi naa la tontu uniquement bu fekkee ni li ma wax ngay consigner. mu ne ma d' accord ma ne ko man je suis pas obligé ma tontu question parce que ça n'a rien à voir avec l' enquête na. ma ne ko bindal je persiste signe. et jure sur l'honneur mu bind loolu. ba léegi xamagul fi ma jëm. que si le président Macky Sall la constitution. mu bind. ba léegi xamagul fu ma jëm. en en se présentant pour un troisième mandat. ma ne ko non seulement je sonnerai l'insurrection mais je la dirigerai. lii waxuma ko ci rajo waxuma ko ci télé. dikk laa ko wax ñu bind ko tàppe ko. ma ne ko j'assume l'entière responsabilité pénale de tels propos que je juge insuffisamment séditieux ñu tàppe ko ma signé ko mu ñu yóbbu ko jox ko procureur xam loolu bokkul ak télé yi. Mm-hmm. mais ñëpp xam nañ ni constitution. Mm-hmm. mayul président Macky Sall troisième mandat. Mm-hmm. Ousmane Sonko acteur politique la. liste Benno Bokk Yaakaar mais ba léegi waxul ne day def troisième mandat. Euh, non waxu ko. mais mais bu ko bu ko waxee la. ko waxee d'accord mais Sonko tam dafa ni bu fekkee ni. list Benno Bokk Yaakaar. bi nga xam ni dafa ëpp. benn ba noppi respecté wul parité ñaar. buñ ko naree validé. invalider yeewi askan bi bu boobaa nag askanu Sénégal la ñuy interpeller ñoo koy fajal seen bopp mm-hmm. bu fekkee ni askanu Sénégal fajaluñ ko seen bopp mm-hmm. moom mu toog këram mm-hmm. toppatoo meereem Ziguinchor loolu la wax donc politique day am wax yu mel noonu mais li xew vendredi kooku meeting la rassemblement la du pour toj du pour sànni à moins que ñu interdire ko interdire ko parce que nous sommes en démocratie am nañu droit dajale nit ñi expliquer leen fii situation bi toll c' est moment de communication parce que ñu ngi jëm ci pré campagne expliquer leen l' état des recours wax li nekk ci listu benn bokk yaakaar ak li nekk ci listu yeewi askan bi euh, li ci jaadu li ci jaadu di ak recours yi fi mu toll ak li ñuy xaar ak ban taxawaay la ñu war a am c' est moment de message avec les populations avec les électeurs loolu ci vie politique la bokk donc euh, loolu euh, daf dafay dafay am tant que ñu ngi respecter les règles du jeu ñëpp dañuy tënku ci règle jeu yi parce que dañu am un ministre de l'intérieur boo xam ni quand même il faut ñu fàttali ni kooku magistrat la magistrat ku xam yoon la on di nul n'est censé ignorer la loi mais rawatina un magistrat Antoine Diome c'est un magistrat donc mënul jël ay arrêté yoo xam ni dafa contre la loi ay arrêté hors la loi di ko imposer. Mhm. ay nit nit déposer le 4 mu jël arrêté le 5 pour valider loolu loo xam ni ressort conseil constitutionnel la. Mhm. direction générale des élections mhm. moom amul pour rejeter pour valider wala pour invalider. liste kooku ressort conseil constitutionnel la moo tax ñu au niveau de l' opposition. ñu sàkk woon a am organe indépendant. Euh, organe indépendant plutôt buy buy buy euh, organiser élection yi. Euh, de des inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats une entité neutre bi ko opposition bi laajtee ci jamonoy Ablaye Wade. Mhm. dañu désaisir Ousmane Ngom. Mhm. Euh, euh, créer euh, direction générale des élections teg fa un certain monsieur Guèye xaw ma naka Guèye. Mhm. mu mu yore organisation wu élection yi élection yi aw ci jàmm. ñu gagné Ablaye Wade. loolu la Macky Sall bañ. depuis ci jamonoy Aly Ngouille Ndiaye déggoon ngeen ko mu naan. bépp militant bu mu leer ni day day voteel Benno Bokk Yaakaar dina fexe mu jot kartam ci jamono joo xam ne ñu ngi téye carte ndaw yi. wala di bind au verso inscrit sur les listes électorales non seulement danañ jot seen carte. Mm. mais dana fexe ba ñu dem voté ci. Mm. et c'était le ministre de l'intérieur mm. chargé de l'organisation des élections daaf ci loxoom la nekk. fichier électoral ci loxoom la nekk mais casquette moo jot ñu wàcc sol casquette gu politique politique. non moom ah, dafa occupé non ministère de l'intérieur lay waruñu fa teg ku am casquette politique parce que yii moo tax parce que da ngay ràcc mu jëm ci yow. président Macky Sall dafa ñëw. Mmh. Euh, euh, fekk fi fichier électoral. Mmh. mu def ko refonte. Mmh. mu fekk fi ay carte électeur ak ay carte yu ñu séparé numérique. nga xam ni moom ci la gagné. mu yóbbu ko mbalit. jël carte électeur ak carte d'identité boole ko. def ko benn. léegi bu lay laaj sa pièce pour financer la. am na également sa carte électeur bu fekkoon ni ñaar la bu soxlaa sa carte électeur sa carte électeur lay laaj parce que mënoon ni kaay ma financé la di laaj nit ki carte électeur am day soupçonné mu jël ñaari fusionné ko amul ndey amul baay. boo tuddee ab Ablaye Ndiaye du ñu xam fils de kii et de kii. créer benn flou jaxase suñu base de données ba noppi téye fichier électoral bi. Mhm. Euh, euh, euh, opposition gis ko ñun loolu la ñuy déplorer. Mhm. donc ñun ay acteurs politiques lañu. Mhm. bu ñu jalgatee suñu àq ak suñu yelleef il faut ñu avertir. te avertissement yooyu day àgg ba ci menace. parce que président Macky Sall mosoo gis mu ñuy menacé nan li fi amoon lu fi amati. ñi nekk seen ordinateur di kàcci kàcci xaar leen rek ba ci kanam. waaw mais est-ce nekkul ñi nga xam ne ñooy nekk di def beneen safaan bi. waaw mais ci internet di saaga. mais ñoom dañuy def safaan ñi ñi lakk di yàq yëfu jàmm. waaw léegi nañu taxaw ci ñuy saaga. Mhm. gis ngeen kuy saaga ñu dugal ko ci liste yi. Mhm. Euh, gis ngeen euh, benn waaju ju doon saaga kii doon wax ni euh, olof yëpp ay sàcc lañu ay ay ay nit ñu dëng lañu. Mm-hmm. et ñoom li ñuy def moo gën a bon. Mm-hmm. apologie ethniciste la ñuy def. Mm-hmm. que yi ñoom nit ñu jub lañu. am na ko wax ñun foogoon nañu affaire bi ci Aliou dumburu Sow la kooku dara fekk ko ci. Aliou Dembourou Sow gis ngeen lim mu fi wax. contre troisième mandat la ñu jël jaas yi euh, jàmbaarloog moom. Mm-hmm. installé benn pël euh, à la tête de l' état. Mm-hmm. ni daaw Abdoulaye Daouda Diallo la ñuy installé bu fi Macky Sall jóge mm-hmm. kooku député la assemblée nationale flagrant délit la soxlu di di di ndimbalaanu kiiraay kenn defu ci dara même Farba Ngom bi nga xam ne ay huit cent quatre vingt dix millions la ñu sàcc ci këram loolu forme de violence la koo xam ne bu doon keneen ñu yóbbu la of nag fii ku fi yor dix yu leerul sax ñu ñu lu ñutu la asama koo xam ne géwélu président ngay denc presque un milliard bu ñu sàcc donc euh, te te njëkkoon nañ ko fi sàcc benn deux cent cinquante millions donc yu mel noonu mais mais violence la Penda Ba gis nañ ko fi et ci réseau sociaux yi quand même am na ay nit ñu jege nguur gi ñoo xam ne guddeeg dañuy saaga di ñu menacer di ñu agressé ñun ñoo leen dul topp parce que ñu ci niveau boobu. Mhm. loolu defante la mhm. mais defante bu malsain la. Mhm. parce que débat politique bi. dafa war a nekk autour d'idée. man doo ma gis may def man musoo kenn musuma dégg ma saaga. kenn musuma dégg ma delloo saaga. kenn musuma dégg ma xuloo. wala ma xaste wala ma attaqué nit. man ci li ngay def. laa lay interpellé bu fekkee ni lu ñëpp bokk la bu fekkee ni sa yëfu bopp la sax man sama yoon nekku ci mais bu fekkee ni da nga yor budget Sénégal yor alalu Sénégal yor ressource Sénégal te doxalee woo ko ci yoon man am naa droit niital askan bi ni leen lii kat suñu gaz bi kat signé nañ ci contrat de vente et d'achat depuis 2020 jaay nañ ko euh, BPGM te waxuñ ñu terme de vente yi terme de vente mu doon lu leer nga xam ne da nga cité société cité euh, euh, cité le ministre euh, Makhtar Cissé joxe date bu précise joxe joxe lu leer donc loolu buñ la ciy tontu day enrichir débat bi mais bu fekkee dañuy waaf tout le temps tout le temps tout le di xaar ay débat dàggasanteeg xastanteeg saaganteeg menaçanteeg yooyu ñun nekk ñu vraiment ci loolu ñun ñu ngi ci débat bu constructif boo xam ne ci li ñu bokk la concerné léegi nag politique lii indi ay tension Sénégal xam ngeen lépp yokk na fi mu nekk nii mais kenn jénguwul kenn toju kenn deful dara. lu tax parce que ñun yàlla daf ñu mooñee muñ ak gëm yàlla mais lan moo mën a indi Sénégalais yëngatu man maa ngi ci terrain bi depuis quatre-vingt-huit mais chaque fois bu dëkk bi tàkkee wala mu yëngatu. dañu laal àq ak yelleefu doomu aadama yi dañu laal démocratie. Mhm. dañu laal liberté. Mhm. le vingt neuf euh, euh, mois de mars plutôt. Mhm. Euh, du du cherté dund bi. la nit ñi doon kaas. problème mu liberté la woon. problème mu liberté la woon. loolu moo gën a mën a indi indi indi jéye. que que le que le de la vie wala les gestions wala courant buy coupé wala et cetera et cetera parce que nit ñi. s'il manque de tout suñu amul dara amuñu lu ñu dundee mais may leen quand seen jàmm ak seen liberté loo xam ni constitution moo leen ko garantir. Euh, yéen dañu jàpp ne ni ngeen di xeexee seen ak ak yelef euh, dafa xaw a doy waar su fekkee ne di jàpp ne su leen arrangé su fekkee dafa am loi boo xam ne dafa jóg dal ci seen i kaw ngeen di posté génne ndaw ñi mobiliser wu ci média yi xeex mais su fekkee ne boo xamante ne ni ci beneen côté bi la daw comme tout récemment gis nañu ci euh, direction des élections euh, bi ñu waxee ne du ngeen bokk ci liste gis nañu Bart bi dem ci foofu indi fa ay attroupements kërëj kërëj donc après gis nañu aussi tamit euh, conseil constitutionnel validé ko ba yenn ci ñeent sax ku ci mel ni soo ko ak keneen. ñoom it dañoo juumoon mais. Euh, nangu nañ ci et loolu kenn waxu ko mais su fekkee ne list bi leen génne ngeen génn xeex wàccee jeunes yi ak euh, wax ci média bi donc ŋàññi est-ce que jël jarul Sénégal ak fi mu toll nii ak yéen maanaam euh, responsabilité bi ngeen am ci ndaw ñi. Mm. nga xam ne dañ leen jox bopp dañ leen di déglu. su ngeen mm. waxee Sénégal yëpp leen di déglu te et aussi tamit est-ce que laajul ngeen xeexee ko beneen façon. maanaam euh, woow kuje politique bi toog waxtaan xool yan solution ngeen di def lu dul euh, ci ci ci bagarre violence bi xam nga. waaw ñaax xale yi ba pare fuggloo booy booy meer wàcc ci télé bi. donc est-ce que jotul benn stratégie boo xam ne nii bu politique ngeen teg ko ci ay yoon li leen yoon may ngeen def ko en tant que citoyen comme parce que euh, ne nga yaa ngi ci mouvement boo xam ne mouvement de citoyenneté la donc pour man booy woote sangaay dafa war a jiitu ci ci sa bopp daal. waaw léegi man xam nga la moo ma jaaxal. Mhm. bi problème mu yi amee ba léegi. Mhm. ban na moo fi amagul. Mhm. amul benn manifestation. à part Barth bi mu demee. te moom du woon mandataire. Euh, Déthié mooy mandataire moom ak Saliou ñoom ñoo waroon def liggéey bi. alkaati yi bañ mu dugg. loolu mooy incident bi am. mais amul fenn fu nit wàccee ci mbedd mi. début processus électoral ba léegi. amul benn mouvement de parce que li ngay wax man xaw ma fan la am. gisuma ku génn gisuma man benn manifeste depuis le mois de mars. waaw mais demain amul manifestation. Mhm. amul benn manifestation mais yéen a ngi waajal benn demain pour manifester. non waaw waaw mais loolu. Mhm. mais loolu yow xanaa xamoo luy démocratie. Mhm. démocratie. gisoo président Macky Sall def fi ay ay meeting ay daje. tuddee ko tournée économique tuddee ko inauguration tuddee ko lu nekk. gisoo étudiant. Euh, ab ah, Benno Bokk Yaakaar yi. ok manifester seen mbégte parce que dañ leen dugal ci liste bi. Mhm. ñu dox ba xaw ma fan def seen rassemblement. Mhm. waa ñun amuñu droit exprimer wu. Mhm. démocratie. mooy loolu. gis nga meeting. marche rassemblement. communiqué ci presse nii. libre ex constitution dafa ne. article huit. ku nekk. am na droit exprimer opinion par image euh, par la plume. sa kàddu donc loolu droit constitutionnel la kon euh, euh, euh, yeeyu askan bee ngay meeting loolu kan moo ci war a tiit dañu dajale wax lañuy wax dix-neuf heures ñu ñu ñu tasaaroo dañu demander autorisation préfet di toog di xaar autoriser guñ ñu sax xamuñu sax ndax dana am parce que jaar nañu ci yoon. Mhm. loolu mooy yoon bi xanaa gisoo gisoo demande d'autorisation bi ñu caché ko. gis ko mais loolu yoonu dëkk bi la. Mhm. noonu la république di marché. Mhm. ñu nekk ñu ci dictature boo xam ne. ñun dañuy ni nuut rek. noppi bàyyi Macky di doxal loolu kenn amul maxaama boobu Sénégal. ok d'accord temps yi seetlu nañu aussi tamit. Euh, temps yi fan yi néew semaine bi yëpp yaa ngi def ay révélation ci wàllu pétrole ak gaz euh, jot nga tudd sax ci ay bloc de Saint-Louis ci ay contrat de vente yi ñuy signé mhm. donc mais euh, li ma gën a amal solo li gën a am importance mooy da ngaa wax benn wax euh, wax ay nit ne Allemagne état bi dafay négocier pour que Allemagne bénéficier wu ci suñu suñu pétrole ak gaz ba jot a wax sax cité ay tur jot a wax ni G7 bi nga xamante ne ñu ngi ci invité Macky Sall sax. Mhm. donc c' est juste pour dem négocier xool naka la ci Allemagne di jotee. Mhm. donc information yooyu fan nga koy fan nga koy amee. xam naa journaliste moom suñu leen laajee information fan ngeen koy amee. Mhm. yéen da ngeen di invoquer seen code de la presse. la source est sacrée n'est-ce pas. mais man euh, samay information. ci samay investigation laa koy amee. parce que man xam naa ni. Euh, nu mu tuddati. Ursula von der Leyen euh, présidente Union européenne ñoo na fi ci mois de février avant Olaf Scholz bi fi ñëw ñëw na fi avec une délégation de cinq personnes pour waajal lii indi président Allemagne bi problème mu énergie bi posé wu Europe donc moom ba mu ñëwee euh, parce que ku nekk ak lii la intéressé gis nga am na ñoo xam ne boo leen laajee euh, Premier League mën nañ la ñaari équipe yu football sax mën nañ la wax erreur yi entraîneur bi def kii la ñu waroon classé au lieu de kii lii mooy résultat dañuy xam joueurs yi dañuy xam équipe yi xam lépp dañ koy suivre à la am information yoo xam ne man lu ma ko am mais damay jaaxle ci booy naka la ñuy comprendre yenn affaires yi parce que seen intérêt la daf leen intéressé donc ku nekk lii la intéressé danga nga ci ciy gëstu danga nga ciy xarañ donc man loolu dafa am signification ci man euh, Ursula von von der Leyen ñëw na fii kooku mën na intéressé mën na bañ a intéressé benn Sénégal mais man dama koy intéressé ba xam ni délégation lu ñëw cinq personnes ci délégation boobu am na une certaine madame Simpson qui est chargée de tous les problèmes d'énergie au sein de l'Union européenne Ursula bi mu paree visitam daf ko fi bàyyi continuer dem Afrique du Sud bàyyi fi délégation bi cinq jours ñu nekk en visite de travail am koo xam ne dafa liggéey ak Antoine Diome am koo xam ne dafa liggéey ak euh, Gladima Sibi ci ay problèmes d'énergie yooyu man dama koy topp loolu mooy investigation. loolu moo tax man su may wax kenn lu ma ne xëyee kaay loo fi wax. dafay leer donc à sa suite euh, Olaf Scholz daal di ñëw Sénégal ci contexte boo xam ne Union européenne ñu ngi manko pour sanctionner Russie pour embargo sur le gaz et le pétrole Allemagne ni moom il peut pas se passer du gaz russe Hongrie ni il peut pas se passer du gaz russe ak yeneen état yoo xam ne euh, fan yële le 27. Euh, non fan yii rek def naa le 30 euh, dañu dañu defal dérogation dëkk yooyu pour ñu continuer di di importer gaz ak pétrole russe parce que pétrole tamit dafay jóge pour seen économie bañ a ndërmeelu te ñoom li ñu bëgg dëgg-dëgg mooy takk biiru Russie mais loolu bu ñu ko defee il faut ñu am énergie de substitution boo xam ne bu jógee États-Unis dafay cher parce que foofu beneen xeetu gaz la am bu ñu ñu tuddee gaz de schiste arrangé wu foog ñu am ay infrastructure ay terminaux euh, mm-hmm. de de de regazéfaction et de liquéfaction yoo xam ne deux ans la ñuy def pour tabax ko. Mm-hmm. donc loolu c' est pas un bon agenda alors que ñun on a du GNL. Mm-hmm. directement consommable parce que GNL gaz naturel liquéfié. avantage am mooy c' est convertible en jour wala en kilo kilojoule joule kilojoule. équivalent ou euh, am na équivalence plutôt ak mhm. kilowatt donc da nga koy transformer directement en énergie pour tourner loolu les industries européennes et puis mhm. pour chauffer leen au gaz ak l'hiver qui se profile donc moom bu ñëwee ba fii mhm. euh, Olaf Scholz le lundi moom ngi ñëw dimanche lundi est-ce que gis nga li li soleil titré soleil dafa titré euh, le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz waxul l'Allemagne de xam nga Allemagne moo fi ñëw. Mhm. dafa ni la dañu titré le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz. Mhm. kon kooku confirmé na. Mhm. man li ma waxoon l'avant-veille. confirmé na li ma waxoon boog la veille. donc loolu mu doon lu ñu war a sante yàlla. bu fekkee ni Sénégal. mën na alimenter toute l'Europe. toute l'Europe waxuma Allemagne mais toute l'Europe. en gaz. donc loolu sa certifie le potentiel. qui la là. ça certifie le potentiel qui est donc loolu man ku mel ni man. su fekkee ni dama xam ni. depuis le vingt euh, le onze février deux mille vingt. Matar Cissé. Matar ak ah, waaw. ak Mohamed Ould Ould Ould Ben euh, euh, Feta. Mhm. Abdel bu bu signé nañu benn SPA. SPA mooy Sale and Purchase Agreement. Mhm. maanaam contrat de vente et d'achat. Mhm. sur le gaz. Mhm. te contrat de vente et d'achat boo gis. vente mooy jaay. jaay jaay da ngay bind njëkk li. ñaata la ñu jaayee. bind nañ ko ci contrat ba. ban volume la ñuy jaay. bind nañ ko ci contrat ba. blocu Saint-Louis 14 millions et demi de mètres cubes moo fay génn. par jour. par jour euh, durée contrat ba mu mu ngi ci mais loolu dañ ko war a publier am na ITIE euh, euh, initiative pour la transparence dans les industries extractives ñu ni dañuy leeral donc tous les contrats yi nga xam ne dafa concerner bien wu Sénégal dañ ko war a soumettre à des standards de publication warul nekk des contrats secrets ci loolu la interpeller gouvernement bi ni na publier Euh, euh, contrat boobu ba noppi tudd naa société bi ñu ko jaay. Mhm. ñu ngi ko jaay BPGM. ba nga xam ne filiale BP la British Petroleum mooy BP. GM mhm. mooy gas marketing. Mhm. British Petroleum gas marketing. mais est-ce que jàppoo ni Sénégal su demee boo mën a alimenter toute l'Europe loolu euh, dañ ci war a kontaan parce que. mais loolu laa la dañ ci war a sant yàlla. war mais mais bu fekkee ni yow depuis deux mille vingt. jaay nga te yow mii xamoo jaay jaay nañ ma Samba ak ma Demba xamuñu Sénégal jaay nañu. depuis deux mille vingt jaay nañu. ba noppi contrat de prévente boo ko signé. mais da ngay am looy encaissé. xam nga parce que jaay nga ba pare bu la neexee nga laaj avance. mais condition yooyu ñun dañ ko war a xam. léegi bu ñu demee nag ba Europe yëpp. ci contexte boo xam ne suñuy gaz bu doon jar dërëm. mën naa jar juróomi dërëm. parce que ñëpp ko soxla ci soxla bu jàmp jàmp lañ ko soxla. fii la waroon a suñu épingle du Euh, defal tubaab bi lu mu bëgg fii lañ ko war a xoj ñu ko ñun nag dañoo am soxla ju taratar ñun tamit mm-hmm. mais est-ce que jàppoo est-ce que est-ce que jàppoo ni euh, Sénégal ni ko pays Europe yi yëpp di daw di wutsee ci wàllu gaz yéen aussi ngeen xam ne ay communicateur ngeen yéen a ngi ci média bi di wax euh, chaque jour di génne ay secret lu jëm ci pétrole ak gaz est-ce que du danger ak ni Europe di sanctionner russe est-ce que ñun mënuñ dem ba dugg ci problème boo xamante ne c'est entre occidentaux yi ñoom seen biir ñu dugal ci Sénégal boo xamante ne ni euh, du am benn du ñu amal benn benn njëriñ mu dugal ñu ci ay ay problème non loolu day day dépendre ci lu ni ñuy gérer mm-hmm. suñu ay ressources parce que ñun aussi mm-hmm. dañu war a xool suñu intérêt mm-hmm. mënuñu am gaz boo xam ni dix pour cent lañ ci waroon am sax ñu ni ñu cinq pour cent lañ ci am xam nga ñoom bu ñu demoon jëndi gaz États-Unis ñoom du ñu am quatre-vingt-dix pour cent gratuit xam nga dañ koy jënd cent pour cent bu ñu demoon Arabie Saoudite Libye bii sax lu ñu fa am quatre-vingt-dix pour cent Angola bii sax lu ñu fa am quatre-vingt-dix pour cent mais pour pourquoi ñun suñu jiir nangu ni million millions et demi de mètres cubes de gaz ñun sept cent vingt cinq mille mètres lañ ci am par mais est-ce que ñun experts yi ak matériel d'exploitation yi ñun am nañ ko par rapport ak yeneen dëkk bi nga tudd léegi ay Angola ak affaire yu demee noonu am nañu lépp parce que gis nga industrie extractive bu nekk Sénégal bu nekk ay doomu Sénégal ñoo ciy liggéey. Mhm. boo demee Sococim. Mhm. ingénieurs yi ba ci ouvrier ba ci planton bi ay sénégalais mhm. mais crémier moo ko moom ab tubaab. boo demee ICS. ingénieurs yi ba ci planton bi ay sénégalais lañu. mais naar yee ko moom. avant naari iranien yi. avant iranien yi français yi jamais les Dangote bi nga xam ni waa Nigéria ñoo ko jënd. boo fa demee ñi fay liggéey yëpp ci kaw ba ci suuf. ay sénégalais lañu. Sabodala boo demee ci mine yi. ci gold room bi ci monitoring salle monitoring bi mhm. ay kàngamu sénégalais nga fay fekk mhm. ñoom ñooy liggéey liggéey bi donc on a l'expertise mais amuñu souveraineté mhm. moo tax may poser problème mu souverain pour saafara ci problème ci problème parce que moom moo jël gazu Saint-Louis boobu bi mu faloo 3 avril la prêter serment mais juin 19 juin mu signé ñaari décret 2012 596. Mhm. ak 2012 597. Mhm. jox bloc yooyu. Mhm. Aliou Sall ak Frank Timis. ñooñu ñoo ko jaay tey Cosmos ak BP bi nga xam ne. Euh, ñoom ñoo am 90 pour cent yi. ñun ñu seetloog Mauritanie suñu 10 pour cent. donc loolu. nga xam ni euh, mooy alalu Sénégal bi gën a rëy. dafa ñëw rek. jox ko rakk ji ak Frank Timis. kon kooku. naka lay sàkkoo ci moom solution. te mu xam lépp. rawatina nag mu def institut de pétrole et du gaz. bi nekk France moom du profane xam nga président Mauritanie sax moom jàngul pétrole ak gaz mais ñun suñu président mm-hmm. mais loolu mooy spécialité am donc tey bu ñëwee def loolu ñoom li ñuy def xam nañ ko mm-hmm. donc euh, dafa lëndëm ba noppi euh, boo gisee man may wax ni c'est parce que euh, Sénégal yàlla daf ñu defal xëwal mm-hmm. bu soleil titré le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz loolu lu jara sant yàlla la parce que li ñu am gaz ci blogu Kayar moo ëpp li nekk Saint-Louis 14 millions et de mètres cubes jour yi Saint-Louis di produire mhm. li nekk Kayar moo ko ëpp mhm. te bokkuñu ko kenn mhm. li nekk Jifeer Sangomar moo ëpp li nekk Saint-Louis te bokkuñu ko kenn kon ñun am nañu benn potentiel gaz yi boo xam ne bu ñu ko exploité yëpp te fës gaz bi mu ngi génn décembre 2023 euh, bu ñu ko exploité dinañ nekk ci top five producteurs de gaz top cinq producteurs de yi loolu jot na nag ñu xoolaat les termes de l'échange parce que am na ay jamono dem si yàlla Senghor dafa doon jooy la détérioration des termes de l'échange benn concept benn slogan bu mu lancé la woon parce que boobu ñun ñu ngi amoon 49 pour cent ci suñu ay ressources français yi am 51 pour cent parce que ñoom lañu ni foog ñu ëppale pour prise des conseils d'administration parce que ñoom ñooy investir ñu nangul leen ko ñu dem ba gis feeru Sénégal oriental bi nga xam ne ba léegi kenn exploité ko ndax ay affaires te ñu ngi lekk ay milliards bi nga xam ne ci France la dépendre léegi France day am cinq pour cent mhm. Sénégal am 35 pour cent mhm. Senghor loolu la doon jooy mhm. nan la détérioration des termes de l'échange Abdou Diouf ñëw yóbbu ko 10 pour cent Abdoulaye Wade ñëw bàyyi ko fa Macky Sall ñëw bàyyi ko fa léegi nag ñun dañoo bëgg sénégalais boo xam ne day défendre intérêt Sénégal parce que loolu du intérêt Sénégal ñu revaloriser les termes de l'échange de façon à les équilibrer ba nga xam ni Sénégal gis ci boppam te régime d'exonération fiscale yi ñuy accorder les industries extractives ñu dindi ko parce que Côte d'Ivoire depuis 2010 la supprimer exonération ñu euh, jëm ci euh, industrie extractive parce que loolu ay milliards yi milliards yi milliards ñun lañuy dem di leb tout le temps ay eurobond ay groupe consultatif de Paris ay ay ay emprunt obligataire ay banque mondiale ay banque africaine de développement ay fonds islamique fu nekk ñu ngi fay leb xaalis te ñun ñu ngi toog ci ay ressources yoo xam ne mais buñ ko valoriser mais dañ ci am levier bu ñu bu ñu financer suñu ay développement. pourquoi ñun du ñu moom pourquoi ñun ñu war a nangu. Mhm. ay sénégalais di di di ñu la pourquoi ngeen di kaas. Mhm. ñuy nangu ñuy am 10 pour cent ci suñu ressources yëpp. Mhm. du yoon. soo ko sim 48 la commencé defar ciment. 10 pour cent ñu ci amoon jaay nañ ko 0 pour sant lañ ci am léegi est-ce que xam nga loolu. information Sococim Sénégal 0 pour cent lañ ci am léegi c'est consigné dans les rapports de l'ITIE. Euh, institut pour la transparence dans les industries extractives léegi Saint euh, Rufisque mhm. ban développement la am depuis 1948 ciment bi ñu tabaxee Sénégal yëpp fa la jógee mhm. grisaille rek moo fa am pënd rek moo fa am ak mbalit ak canal yu bouché ak yooyu tout ça Rufisque bénéficié mhm. ci usine bi nekk foofu ci ci ci Mboro ñu ngi fay ICS depuis kañ alal bu weex tàll mu ngi fay génn mais Mboro ils ont tous les problèmes ndox bu baax sax amuñu ko Tambacounda la fay génn ci ay ton ton or ak Kédougou Kédougou mais dafa bëri mais village yooyu amuñu dara dara dara dara nañu meloon ca jamono yi seen maam la ñu mel ba léegi donc loolu la ñuy jooytu pour li ñu am mu jëm ci suñu développement ñu gis ci suñu bopp et ñu ni quatre-vingt-dix pour cent bi tubaab bee tuba tuba tubaab bee ko moom loolu ku koy xeex ñëpp a ko war a jàppale mais kenn waru ko ci diingat parce que loolu mooy moom sa bopp mooy moom sa réew